jërëjëf mbokku téléspectateur u Leral TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbégte la ñu dellu siwaat yéen fii ci seen émission focus fas yéene ànd ak yéen ci lépp loo xam ni rek euh, luy euh, actualité waxtaanee ko jamono ji nag ñun ñëpp xam nañu ni actualité bi dafa centralisé wu ci gàmmu gàmmu nag buñ ko waxee xel yëpp dafay dem ci euh, Tiwaawan waaye Tiwaawan fiihal yumnu lil nii loolu nag buñ ko waxee rek mooy dëkk la boo xam ni dëkk lumière la dëkku xam-xam la dëkku barke la euh, ñu fas yéene ci nag tey euh, waxtaane ci tomb boo xam ni tomb boo am am solo la euh, dinañ ci ànd ak sunu gan tey nekk oustaz Mouhamadou Ndiaye Thiam moom ñoom lañu fas yéene àndal tey ci jotaay bi mu mel ni rek tey waxtaan wi dafay nekk exclusivement dellu ci wàllu gàmmu waaye ku ne xam na ni jamono ji euh, tey dafa am loo xam ne loolu la dëppool euh, muy euh, génn àdduna ki nga xam ne moom mooy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin nekk tamit lu ñuy fàttaliku ñu ko daan woowee le gardien du temple fële nga xam ni moom mooy ca Tiwaawoon muy njaboot ci Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu waaye di njaboot ci soxna Assukan waaye itam nekkoon koo xam ni ku taxawee woon ci liggéeyu maamam la liggéeyu waajuram Serigne Babacar waaye liggéeyu maamam Seydil Hadji Malick si def ci ay réalisation yu amaamam solo kon nag jaadu na bu bis boobu teewee ñu rendre ko ci un vibrant hommage euh, à travers cette émission Focus ñu ciy jaaree rek di nuyu sunu euh, wëllëre nga xam ne njaboot la ci moom di euh, soxna Astou Sy Al Amine Euh, di yaay si ñun di bàjjan si ñun waaye aussi tamit euh, di collaboratrice ci yu bëree bëri euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax foofu lañuy jaaree rek dalal suñu gan oustaz Mouhamed Ndiaye Thiam <laughs> tey nag c'est l'élève qui reçoit son maître <laughs> kii ma dalal nag yàlla dogal na kóllëre bu yàgg moo ñu boole ndax moom moo ñu toqi ci wàllu xam-xam Euh, ñu jaar ci ay loxoom mu jàngal ñu ba yàlla dogal tey lépp lu ñuy toog di ko nab nabe euh, fii euh, def na ci joué na ci partition muy lu ama am solo donc ñu ko ci sant di ko ci gërëm bu baax a baax a baax oustaz nuy nañu la ziar la di la massawu ci déplacement bi ndax yoon wi xat na ku ne xam na ni obligation yeeg yi nga yore yëpp bari na ndax déplacé la moom massawu rek lañ ci war a mën a teg. ñu bàyyi la nga ak téléspectateur Leral TV. alhamdulilah rabbil alamin inna alhamdulillah alhamdulilah alladi bi nicmatihi tatimu salihat walhamdulilah ala kulli yi suivre seen émission bi ci Leral ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ko oustaz Daouda waxee ñu ngi leen di masawu coono ci xataay beeg émission bu xaw a tardé bi juuti quelques minutes di renouveler waat sunu njaal ci sunu maam bi nga tudd mooy sunu maam Cheikh Abdoul Aziz Sy taalibe Serigne Babacar taalibe Serigne Cheikh radiallahu taala anhu yal na yàlla yeesal yërmande yal na jéggal ko yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla teeru ko yal na yàlla teral ko tabarakallahu ñoo ngi fàttaliku wax dëgg yàlla yi fi jaar ci anniversaire maam cheikh bi ci génnu àddunaam taxawaay yim ci def ak responsable moral woolu bi mu ko woolu mu dem ya ñu tëju waxante kon yooyu vraiment nekk na yu solo ba kilifa gi di ko nettali kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu am yaakaar ci moom rek yàlla bu yaakaar tas di nuyu téléspectateur yëpp di la ziar tamit xam naa te nga ni c'est l'élève qui reçoit son maître mais actuellement bon c'est le contraire ndax it bu fekkee ni élève bi jàng na tamit ba raw maître bi maître bi tamit faw mu ñëwaat rek ndax ma man lam yuuloon ma ratee ni fa lam yalija malakuta sama kon nag tey ñu ñoo ñëwaat defaat apprentissage incha allahu taala à travers l'émission incha allahu taala yan yàlla def sutura bu soob yàlla macha allah jërëjëf loolu moom xam naa ni euh, duñu ko nangu benn yoon <laughs> ndax ma man allamaka xarfan fa huwa mawlaak comme ni ñu ko waxee ne ki nga xam ne moom moo la euh, jàngal donte benn xaraf la kooku moom mooy sa sang euh, mënoo ko ëpp benn yoon euh, oustaz tey ku ne xam na ni ñu ngi ci wàccaayu gàmmu bu ñu waxee gàmmu nag xel yépp dafay dem ci fële nga xamante ni ci Tiwaawan mm-hmm. waaye ci biir Tiwaawan aussi dafa am tamit benn xew-xew ba mu am solo am koo xam ne mi ngi bokk ci biir njabootu Seydil Hadj Malick bokk ci njabootu Serigne Babacar bu buñ ko waxee xel yëpp dafay dem ci Mawlaay Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Maktoum moom mi nga xam ni euh, mi ngi waajal gàmmu gi fële nga xam ni moom mooy ca champ de course waaye ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy daairatul mustarshidina wal mustarshidaat oustaz tey bu ñuy wax ci daairatul mustarshidina wal mustarshidaat ci waajal li nga xam ni moom mooy gàmmu ci keppaaru kilifa gu tedd gi ngay gis ci image bi. Mhm. di euh, Cheikh Mouhamadulil Moustapha si euh, ci wàllu décentralisation bi nga xam ne daayira bi def na ko tey ba gàmmu tey am benn dimension boo xam ne dimension bu international la ban euh, jàngat nga am ci loolu. waaw jërëjëf oustaz Daouda xam naa de passage ñoo ngi nuyu. Mhm. kilifa gi nga xam ni moom la ñuy jàkkaar lool ci écran bi. Mhm. ñuy faral di wax ni ku kulli wa jumlati loolu yàlla dogal ñu ngi nuyu tamit sunu capitaine moom Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine uh-huh. ah alhamdulilah kenn ku nekk rek uh-huh. ak li la yàlla sédd ñun xëy na mooy sunu buntu ci kër Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu uh-huh. waaw bu ñu tuddee burdu ni nga ko laajee ak décentralisation yi lu normal la te lu jaadu la Oustaz Daouda defe naa ni bu fekkee ni yaa ngi fàttaliku ci daara ja mhm. am na lu ñu doon jàngal al fi'lul laazim wal fi'lul mutaaddi mhm. am na phrase boo xam ni yaxtaaju ila fi'lin wa faa'ilin faqat mhm. wa hunaka jumal taxtaaj ila fi'lin wa faa'ilin wa maf'ul aw wa mafaa'il noonu mu amee ci langu arab léegi-léegi boo soxlaa benn phrase man nga am rek verbe sujet wala sujet verbe mu doy mhm. am na yenn phrase yoo xam ni nag il faut mu am sujet am verbe am complément mhm. bu ñu xoolee décentralisation yi tamit dafa am lu ñuy tuddee alxayr al lazim ak achar al lazim mhm. ni mu amee tamit noonu la amee alxayrul lazim ak acharul lazim dafa am yiw woo xam ni mën na yem ci nit ki kese baax na mais bu yaatoo ba génn ba yaatu day gën a baax moom lañu tuddi alxayrul mutaaddi gàmm gi ni mu demee burdu yi nekkoon na ci ci benn pàcc bu restreint mais bu ñu demee ba yaatal ko parce que dañu gis ni foofu jamono toll ñu tuddee ko alxayr al mutaaddi gëm bi ñu gëm ni tamit yiw du doy mbaax du doy ndax am na ñoo xam ni dañuy jàpp ni dañu bon mais bëgg a bon gi tollul noonu dañu amul ku wax ak ñoom dañu gisul ku wax ak ñoom Mawlaaye Seyid Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy ci dégg jamono ci mottali mission maamam bi sallallahu alayhi wa sallam ak maamam Seyid Alxaaji Malick si ak ñi ko donn ba moom ñi mu donn ba fi mu toog ci lu ñu gëm moom tamit xam bi mu xam ni mission bi du lu ñuy teg ci benn barab moo tax mu yaatal ko mu tàmbalee loolu ci burdu bi nga xam ne ñi ngi koy jàng ñu gis ne burdu bi ñi ngi ko harmoniser sur le plan national dans tout le tout le territoire mhm. national mhm. daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidaat di organiser ay séance de burdu mais aussi tamit sur des thématiques yoo xamante ni yu ama am solo la des thèmes d'actualité mhm. des thèmes yoo xamante ni dafay participer ci la gestion de la cité ñu tukkee ko ci li nga xam ni moom mooy les enseignements prophétiques mhm. waaw gis nga Oustaz Daouda mhm. wolof dafa teel a wax nee na ku dul roy da ngay tàmbali ñun ñi ngi sant yàlla ba Serigne Moustapha alhamdulillah lépp lu ñuy def ci lu bari ci li yàlla dogal dañ naan sëriñ ba ba mu ko defee kañ la ñépp topp ci ginnaawam alhamdulilah sant yàlla roy lu baax dara newu ci moom nag lii alhamdulilahi rabbil alamin def na ko ñu décentraliser ko tey boo demee ni nga ko waxee niveau national niveau international fépp ñi ngi burdu ak thématique yi nga wax fii ma jóge nii ci suñu localité mhm. ñu ngi ko organiser mhm. boo demee jëppal noonu mhm. boo demee États-Unis noonu boo demee France noonu boo demee Afrique du Sud noonu ba ci Tiwaawun al Mahrousa noonu kon alhamdulilah parce que gëm bi ñu gëm ni parce que mardi yéen ma invité woon Yaraax parce que mardi ñu ñoo invité woon Yaraax insha allah taala waxtaanee ci Seydina Mohamed ou l'incarnation d'un leadership par excellence mais loolu sant yàlla la Daouda uh-huh. liggéey bu mel noonu di njaboot ci yonent bi di set ci Cheikh Al Hadj Malick di mottali mission maamam bi wax dëgg yàlla Sénégal ak adduna bi ameel nañ ko njukkal war ko ñaanal gudd fan ak wér ak wérle ndax moom deful dara boole ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne inna lillahi malaikatan sayyaara ñoom seen mission mooy lan yaltamisuuna amaakina zikr waaw ah. ah, daado bu fekkee yonent bi. sa loolu mooy la. sallallahu alayhi wa sallam dañu yonent bi. Mhm. moo wax ni yàlla dafa am ay malaaka yoo xam ni ñoom seen mission mooy dañuy def. convoi. convoi di sillonner amaakina zikri fépp foo xam ni gis nañ ni toog nañ fa di tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di def ay zikri dañuy ñëw wër leen sécuriser leen ñaanal leen yàlla. defal leen jàmmi biir defal leen jàmmi biti waaw kon nag bu fekkee Serigne Moustapha teel na dégg daaj boobu teel na dégg hadis yonent bi ba tax mu décentralise ko ñaata junni junni yonent ñooy wër al mustarshidin ñooy wër al ak ku ci bokkul tamit te nga yéene leen loolu am loolu wax dëgg yàlla gàcca ngaalama si Malick macha allah jërëjëf euh, oustaz ci jàngat boobu. Mhm. mais dañuy desandi foofu ba léegi euh, tey bu ñu xoolee li nga xam ni moom mooy burdu yooyu. Mhm. li fay jot a génn ci ay euh, enseignement Euh, coordination boobu. Mhm. naka la demee ak tem yi parce que thèmes yi boo ci xool bu ci nekk rek daanaka mat na gàmmu. waaw ndax li fay génn yëpp xam-xam la mais aussi dafa am benn élément bu am am am solo muy lan muy gis nañu ni burdu bi. ñi ciy waxtaan ñëpp c'est la jeunesse. Mhm. Oustaz Daouda. Mhm. gis nga Serigne Moustapha xaw ma nag allahuma la aduru nag ñi ngi jégalu téléspectateurs yi waaye nag tey. <laughs> Ah, moom la ñu invité moom moom faaw ñu tudd turam. Ah, waaw moom moom jotaay bi tey moom moom jotaay bi nag. Mhm. gis nga moom dafa teel a dégg enseignement yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. Euh, alhamdulilah rabbil allahuma la aduru. dafa teel a yar njabootam ci enseignement ak orientation tey gis nga xale yooyu ngox ñoom la ñuy tuddee waa MJ ñun sax xëy na am na ñoo xam ne féete nañ leen mag tuuti mais yow mi dem ci burdu yi ay xale vingt ans vingt cinq ans maximum trente ans ñu jàng seen diine ba xam ko jàng seen tariqa ba xam ko ñu nampatal leen ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu màndi ci kon nag doy na sëkk nga ni ñu laaj la foo bokk nga ni njabootu yonent bi laa mhm. ci ban buntu nga jaar nga ni buntu Seyid Mouhamadou Moustapha si Al Maktoum mhm. ci enseignement orientation yooyu ak ñim ñu booleel ci suñu supérieur mhm. ñu jël ay thème càmbar ko comité scientifique bi toog xool ni ren lii moo jaadu fii la jamono tollu ci yàqu-yàqu jikko fii la ñu war a toll ci jàngale yonent bi ñu jël asatise yi jox leen thème bi yónni leen mais loolu loolu Oustaz Daouda loolu xewul tey. yeneen ci yàlla salal suñu jigéen ma consoeur may sa Mbengue aussi def ci un travail remarquable. ñu ngi koy nuyu di ko ziar ndax tey bu ñu amee jataay fii tey moom moo ñu yabal. ndax moom moo jël sélection bi ci ndigalu kilifa bi moo jël kenn ku nekk fu ñu la war a yóbbu ñu yóbbu la kon de passage may sa ñu ngi lay nuyu yaa ngi ci yoon bi incha allah yàlla boobaa ci yoon bi. Daouda daal pour mhm. bi structure la nekk. bien structuré am sécurisation bu wér xam li ñuy def xam kañ lañ koy def nan lañ koy defee grâce à kii ñu jàkkaarloo mooy le patron c'est lui le patron et il sera toujours le patron yal nañu ko yàlla fayal incha allah taala. yal nañu ko yàlla fayal mais liggéey bi nga xam ni euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy daf ko réussir sur la jeunesse. Mm-hmm. Euh, tey liggéey boobu ñu gis ni burdu bi. Euh, boo demee tey ci daayiratul Moustarchidine ñiy def burdu ñëpp. Mhm. gis nañu ne fi ñuy toog di jàng burdu yi. Mhm. ay xale rek ñoo fay toog di jàng wax naa ko léegi ci ñiy def thème yi. maanaam tey formation boobu nga xamante ni sëñ Moustapha moom la réussir parce que à l'heure où nous parlons euh, ñi ngi wax ni dañu nekk ci monde boo xamante ni crise yi nga xam ni moo ñu attaqué dafa bari. Mhm. crise de leadership crise crise crise d'autorité lépp ñu ngi koy faral di wax. ñu gis ni dañuy faral di wax naan jeunesse en dépravation des mœurs souvent dañ koy coller à la jeunesse souvent ñuy wax naan jeunesse bi jàngatuñu jeunesse bi liggéeyatuñu nangam ak nangam mais tey ñu gis bu boo demee chez les gis nañu ne c'est tout à fait le contraire parce que ay ndaw nga fay fekk yoo xamante ni dañuy fees dell ak xam-xam. Mm-hmm. mais tamit ni ñu feesee xam-xam noonu la ñuy feesee dell ak yar. liggéey boobu ñaata ci ci ban durée lañ ko kii wala dafa nekk loo xam te ni euh, c'est quotidiennement lañ koy lañ koy assurer. Oustaz ñun dañoo gëm ni Seyd Mouhamadou Moustapha Sy li mu yore nii rallonge la rek ci mission prophétique bi sallallahu alayhi wa Rich may leen ma beneen photo bi ñu bind arab noonu ci photo Serigne Moustapha Sy bi loolu dama bëgg oustaz euh, kiiwal ma ko en direct <laughs> waaw bu jàpp jàppandee rek nga sélectionnel ma ko waa kay mu ngi noonu Euh, Oustaz. bii daal damay bàyyi <laughs> ndax lii ki nga xam ni moom moo ko bind. mooy Oustaz Hadi mhm. euh, di sët ci maam xalifa Niass. Mhm. bu wal moom moo bind lii euh, sëriñ Moustapha Sy. Mhm. Oustaz damay bàyyi photo bi. nga commentel ma li nga xam ni moom la ci Serigne Hadi ci ñàkk ki ñaanam. Serigne Hady Niass di Serigne. Mhm. Serigne Hady Niass am ay taalibe. Mhm. Serigne Hady Niass mën a wax kàddu yi ci Serigne Moustapha Sy. Mhm. Oustaz Daouda Seydi Seydi Hady Niass. kon ñu ngi koy ñaanal. ci ñàkk ki ñaan. ndax wax sa mbaaxuwaay. du wàññi ci sa mbaax dara. dëgg la sunu wayju doon wax ni yaa baax doy na tagg yaa bon doy na tagg kon Seydi Hady. Euh, nu mu yaa baax mhm. ça veut tout dire mhm. ah yaa murshid al qawmi yaa man xaada martabatan mhm. man xaadaha faada fi daarayni an sharafi allahu akbar <laughs> ah lii de xanaa ah, comme taxuñu woon jóg sama wëllëre bopp la waaye nag wax dëgg yàlla yonent bi saa Hadi ku baax la ku baax la parce que ku baax mooy mën a wax ci ku baax lu mel nii gis nga dama ko seeti ndeysaan di waxtaan ak moom ci xasida bi Euh, nekk ñu ngi ciy def ay tradition mu mhm. yëkkati ñaari téeréem mhm. may ma ko ndeysaan euh, ne ma maa la ko jox li nga sonne ci bindu mag ñi mhm. muy ko xam ne taalibe xaqan la waaw mu ne yaa murshidal qawmi yaa man xaaza martabatan man xaazaha faada fi daarayni an sharafi est-ce que lii de buñ ko waxee Serigne Moustapha mën nañ jël ni rek wax bi wax nañ ko sallallahu alayhi wa ndax al Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. wa Moustapha zamanihi. yashtabihaan. moom la ci biir moom la ci biti. waarisu sirrihi. waarisu sirrihi la chak. loolu nag du samay wax. lu ñuy làmb daj la. lu ko xaadi wax. yaa murshid al qawmi. arab bu ne yaa xarfu nidaa la. est-ce que bu ko neexoon ni ayaa waaye way bi xëy na day damm. ah bu ko neexoon ni ah waaye xëy na way bi day manqué mu ni yaa pour mu tollool. c'est un grammairien ah. xam naa nag maa ngi xool ndax kii ci ban ci ban baxar la ko way balaa ñoo jóge ñu jéem a xool yaa murshidal qawmi yaa man xaazamar tabatan xam naa daaw nag moo comme dama fët waaye daal mi ngi wax ni uh-huh. yow mi nga xam ni yow yaay gindi mm-hmm. al qawm mooy mbooloo mooy nit yow mi leen di jindi kon moom la ñu tuddee al murshidul am. Mm-hmm. le responsable moral le kër zonet mm-hmm. des mu ni yaa man xaada martabatan yow mi nga xam ni yaa laq yaa màng yaa dajale martabatan martaba. Oustaz Serigne Moustapha maratib yépp yi ko yàlla jox mas naa dégg ci waxam. Mm-hmm. mu ni bi ko Seyid Cheikh laajee. mu ni li yàlla defal ko ci ay marte ba yépp buñ ko ci laajoon booy tànn mhm. mu ni xool bu sell aywa régie joxaat leen ma kii bi waaye mu ni xol bu sell mhm. kii moo baax ndeysaan kii moo ñàkk ki ñaan il a décroché kii moo bëggul lu baax des élus de Dieu wallaay Daawda kii bëggul ah. <laughs> tey bu doon moom la yàlla jox àjjana ma xam ni ku yàlla bind ci kaw suuf doo dugg safara wallahi alazim malheureusement nag Sénégal xamuñu ko. Mm, man xaasaha lan la ko. man xaasaha. nee na ku làq martaba bii muy wax. martaba bi Serigne Moustapha si am bi Serigne Moustapha si am. ci yàlla ci yàlla. Mm-hmm. faasa fi daarayni an sharafin fii ak fële dana am bépp xeetu teraanga. maanaam dafay am résultat fii ci àdduna. fii ci àdduna te feeñ na moom ndax Serigne Moustapha ay résultat moom feeñ na. mais loolu kenn du ko. kenn du ko jiixi jaaxa kan mooy mu safaa dañuy wax ni oustaz bu ñuy laaj diw mooy kan xoolal ci ñi mu yar xoolal ñun ñaxum suuf mii ñun ñoo gën a doye di ci ni mu Moustapha am ñuy wax loo xam ni kenn du ko dindi waaw kon ñun ani suñu supérieur ani suñu supérieur ani suñu supérieur ba ba ngay àgg ci moom. te Serigne Hadi kenn xamu ko ci lu ñàkk. kenn xamu ko ci lu ñàkk. fayda te waxam bariwul te waxam bariwul ñu ngi koy suivre ci émission yal na yàlla lafal ko cat yal na yàlla dimbali xasida bi mooy deuxième fois ah. Serigne Hady Niass di ci way Serigne Moustapha wallaay du ko réccu de moo taxit jëm ci kanam rek mhm. Serigne dafa am loo xam ni gis nga dafa am koo xam ni mhm. boo ko joxee gëddëm rek mhm. yàlla fay la ci fii fay la ci fële kon Seydi Hady yàlla fayal la suñu borom ci barke ak ci martaba góor gu baax gi nga tudd radiyallahu taala anhu waaw kon mi ngi noonu yaa murshidal qawmi yaa man xaaza martabatan man xaazaha faaza fi daarayni an sharafin loolu la ko Serigne Hadi Niass wax Serigne di Niass na Serigne Moustapha si yow mi nga xam ne yaay orienté jaamu yàlla yi yow mi nga xam ne say martaba kawe na ndax martaba la boo xam ni képp ku ko am rek di nga am texe àdduna waaye di nga am texe àllaaxira ndax say résultat fii lay njëkk a tàmbalee kon jërëjëf oustaz ci taaliqaat yooyu macha allah oustaz ci deuxième point bi dañuy waxtaani euh, sens du mawlid selon les enseignements et orientations de Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala euh, maanaam tey mhm. naka lañ mën a comprendre euh, le sens mhm. maanaam maanaa bi nga xam ne gàmmu am na ko waaye aussi enseignement jàngale yi ci Seydi El Hadji joxe mais ni ñu mhm. ci joxee jàng enseignement noonu la ci joxe ay orientation Mm-hmm. yoo xam bu ñu waxee orientation yi dafay dugg ci cadre organisationnel bu gàmmu yan mooy dawaabit yi lan mooy euh, aadaab yeeg yëpp yooyu la mm-hmm. ciy ciy dugg ci biir mm-hmm. kon euh, sens du mawlid selon les enseignements et orientations de Seydi Hadji malik euh, Seyid Alxaaji Malick sunu maam radiallahu taala anhu yal nañu ko yàlla fayal te yàlla fay na ko sax ndax fay bi mu ko fay moo rogalaat ba ci seti tey bu ñuy tudd gàmm alhamdulilahi rabbil alamin mhm. kenn du ci génne ay sayid alhaaji malik radiallahu taala anhu waaw loolu day oustaz dafa jar duut baaraam mhm. ndax seydi haaji malik magul ci réew mi mhm. seydi haaji malik njëkku fay jàng ndax seydi haaji malik bi mu ñëwee fekk nañu taalif ay téere bind ay xasida way ci yonent bi sallallahu alayhi wa fuuti yu taal bokk na ci ñi feeñal Seydil Hadji Malick Sy mhm. radiyallahu anhu waxoon ni dana ñëw mhm. te bu ñëwee maalikun maalikun maalik mhm. bu ñëwee dana yóbbu lii nga xamante ni moom laa yor muy tarixa bi fépp ci àdduna loolu am na de waaye Seydil Hadji Malick fii la fekk maam Abdullahi Niass mag ñu baax ñee kon ci réew mi daan way yonent bi daan gàmmu mais dañu daan gàmmu officieusement mais képp koo xamante ni une personne douée d'intelligence une mhm. personne qui une honnêteté intellectuelle war nga mën a nangu ne gàmmu officiellement fii ci Sénégal Seydi Hadji Malick moo ko fi njëkk def ci cadre bu organisationnel boo xamante ni ñëpp di ko def mhm. donc kon loolu dafa war di leer ci bopp nit ñi comme ni nga ko waxee lu baax nag moom ñëpp ko bokk dafa yaatu mhm. mais nag le mérite appartient à celui ki commence parce que loolu moo tax nag euh, gàmm bu jotee Tivaouane occupe une place très très importante ci wàllu gàmm donte feneen foo dem fu nekk gàmm am na fa. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, Oustaz Daouda Cheikh El Hadj Malick. radiyallahu anhu moom laa la wax ni. ma ni sunu borom fay na ko. ba wis ko sax. ndax moom këram. dafa teel a xamal nit ñi santul si. yàlla la sant kon fu waay mën a jóge mhm. sant boo mën a sant mhm. loo mën a occupé yaa xam rang boo mën a am mhm. boo ñëwee ci kër gi yàllaay kese moo tax kenn ku nekk ci réew mi mas nga jàpp bis am koo ko tuddee Cheikh Alhaaji Malick rek moom la ñuy duut baaraam ci Sénégal moo jël guddi tuddee ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nekk am nga sa bis boo tuddee sa maam wala ku la jege mais moom yonent bi rek la tàntal loolu nag tey résultat bi mi ngi nii ala azimu ala azimu layla al wiladati xisbatan ida lam yakun nahwa al xaraami udulu mhm. def ci taxaw seet am na solo mhm. ñu def ci taxaw seet mhm. bëri ñu ngi def focus jëm ci gàmmu waaye nag ñu ci xel. Mhm. ay Seyid Xaaji Malick si li mu wax. radiyallahu anhu. Mhm. dañuy jaadu nañu màggal juddu yonent bi. nan lañ koy màggalee. niñ koy màggalee mooy dafa indi benn condition rek. Mhm. ida lam yakun naxwa alxaraami udul. dëgg la. buy bijjiwul yóbbu nit ñi ci dérapage. rek mën nañ ko màggal. mën nga jàng Alquran. màggal na juddu yonent bi. man nga togg ay ñam hmm. màggal na gudd yonent bi man hmm. nga def ay salawaat màggal na judd yonent bi man hmm. nga def ay azkar màggal na judd yonent bi mën nga jokk mbokk mën nga julli ci yonent bi nga ni sunu borom lii ma def nii ci jàng alquran lii ma def nii ci tagg yonent bi lii ma def nii ci sarax soo ma nangulee yool bi maa ngi koy yéene sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki la wax ni dafa araam mhm. man duma ci nekk di ci araam na ndax téeméeri at ak lu topp ñu naan dafa araam te bis bu jot muy gën a jëm kanam li ma dégg benn naar bu wax ci ñoom mu ni al ixtifaalu bil mawlidi sharif laa yaxtaaju ila xadisin saxiix bal yaxtaaju ila qalbin saxiix ku sa xol fiix te wér rek mhm. màggalal ku sa xol fiixul te feebar seeti leneen mais amuñu ku gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, daa du mhm. moom lim ñuy éviter rek mooy màggal ko araamul mhm. mais nañu bañ a yóbbu ci dérapage donte nag moo tendance yi. Mhm. xew na. Mhm. léegi tey lu ne ngay gis. Mhm. te loolu nag yéen ustaas yi yéen nekk ci plateau yi nañu wax xale yi. focus bi jëm ci gàmm yi léegi bari na boo xoolee statut yi. soo xoolee tendance yi. nuróolu yi xëy na sax peut-être nuróolu yi ci mhm. benn côté. Ah, man nga ko bañ a bañ. parce que loolu dafa am harmonisation la. parce que pour dàq discrimination. ñu mhm. xam ne ñii ñoo am wala ñii nangam. defandoo ko mu nekk benn tenue unique. loolu mënees na ko mënees na ko. mën nañ ko nangu ci benn côté. mais su fekkee ni mu nekk lu tendancieuse. mais nag li tax man ni ci benn côté mën nga ko bañ. Mhm. su fekkoon ni dañuy jënd tissu bu yam. ñu ni kat tey kii am na kii amul. comme li mu xew ci école yi blouse yi. Mhm. mais tey gars yi dañuy xotti. Mhm. ay cent mille francs deux cent mille. ci benn côté di ngeen yonent bi jar na ko nag. Mhm. ndax na ku nekk ak sa bis. la mais daal bu fekkee ni ki sol yére deux cent mille. yonent bee ko jar xaalisatan li wajhi la. kenn du ko ci collé motif. mais soo ko defee nag pour riya wala pour ñu gis la wala pour nangam su boobaa nag daf lay yóbbu ilal xaram. Cheikhul Xaaji Malick daal. gudd gàtt daal wax gi mooy chapeau à Cheikh Alhaaji Malick fii ci Sénégal ak fudul Cheikh Alhaaji malik ndax bokk na ci faydaam bokk na ci xam boroomam mu ni sunu borom lan ma nar a fay bu fekkee di nga ma fay bàyyil ba ëllëg ba ma téeri ci sa borom wa jaal qilaadata jiidi fi asaabi man ala man anzalta ayatin kalimati kooku oustaz su sunu maam Cheikh Alhaji Mal yal nañu ko yàlla fayal <laughs> moom nag moom mooy maamu sunu responsable moral waaw man balaa muy ñëw ci responsable moral foofu moom dama koy dama koy mujjee bu ñëwee ci borom guddi gi hmm. borom guddi champ de course champ de course transformé en champ de cours hmm. voilà maanaam euh, def nañ ko bërëb boo xam ni bërëbu xam-xam la mujjee hmm. nekk euh, Seydi Hadji Malick moom li nga wax léegi nii dafa wax ni yàlla li ma liggéeyal yenent bi yëpp sallallahu alayhi wa li ma ko tagg li ma ko defal yëpp yëpp yëpp mm-hmm. ba ñu koy joobee ndax maamu Serigne Hadi Niass mii xam nga Serigne Hadi li mu defal euh, Serigne Moustapha Sy nii tagg ko ci mm-hmm. da koo donn mm-hmm. sa da koo nàmp nag maam Khalifa Niass ku baax ci réew mi ku ne way na la maam Khalifa Niass ni mu woyee Serigne Touba noonu la woyee Seydil Hadji Malick radiyallahu nil nal marama wa nil na xaasil xaaji min yum ni nay li liqaa is Seydina Alxaaji wallaay ndeysaan mu ne ku bëgg a xam résultat Seydil Hadji Malick moom maam Khalifa Niass mhm. mu ne wa yura ladayhi daw yu zikri yuqadu man qad naama fii looda aw sindoora lil baaji mu ne Seydil Hadji Malick ku bëgg xam résultat am. boo ba foofu nee na nee na boo demee ba ndar. boo xëyee Nasir xaq bil xaq ji rek moo lay woon ci fi liggéey. xam nga boobu ndar la déparé boo xëyee fajar mm-hmm. Mm-hmm. jàkka yi ngay dégg naasaril xaq bil xaq lépp ci compte Seydi Hadji Malick la dugg nag wallaay waaw wala bu lépp duggul ci compte am quatre vingt dix wala quatre-vingt-quinze pour cent ci compte la dugg mm-hmm. ba ci burdu yi mawlaaya salli yi ngay dégg mawlaaya salli wa sallim daa iman boo dégg mu rëkk ci compte Seydi Hadji Malick la dugg wallaay ndeysaan saas Maodo Maodo ak yeneen ah, yàlla ñu ko yàlla fay <laughs> mu bind xilaas xilaas nekk mille 1052 bayit mhm. mu jël 160 bayit di burdu mhm. Maodo nañu nañ koy jàng ci fukki bunt yi mhm. oustaz Maodo loolu lay jàngale foofu bañ a buruxloo rek <laughs> moom li mu bind su ko neexoon mu ni nañu jël weer bi 30 jours xilaas 30 bunt la bis bu jot mu ni way leen li ma bind mais comme burdu ni nga ko waxee fukki bunt la te nawle moo ko bind te da doon def te tawassul ci yonent bi mhm. te ku def lu baax nga wax ci sa mbaaxuwaay waaye aayul moo tax mu jël ko barkeelu ci honnêteté intellectuelle intellectuel intellectuelle moo ñu xaw a nag nangul nit cëram li ko yàlla jox dégg ci suñu responsable moral mu ne loolu dina tax a gudd fan nag nangul nit li ko yàlla defal dina tax nga gudd fan dëgg la de parce que Oustaz Daouda dafa am lu lu lu metti mhm. mooy yàlla ni nii la nga ni du nii. da sonn rek. mais da sonn sonnal say moom laay wax ni fu fu rafet jekk. Mhm. boo fa ñaawee dootoo rafet. dootoo rafet <laughs> dootoo rafet. Ah. kon Cheikh Al Hadj Malick ah. mi ngi jàngal ay njabootam. Mhm. ku def lu baax. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko amee ci barkeem. Mhm. te yàlla rek tax mu def ko. toppandoo leen ko ci lu baax. ndax ma dalla illa man udilla ala wasfun yuqabbahu jaanibal macha allah yal nañu ko yàlla fayal Oustaz Daouda yal nañu ko yàlla fayal waaye Oustaz ah. Seydi Hadj Malick mhm. dafa liggéey xilaasu zahab mhm. xilaasu zahab mu bind ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, muy 1052 vers mhm. toll ci fanweeri bunt Oustaz xilaas boobu noonu ñu gis Sëriñ Moustapha Sy Maktoum joxe ndigal pour njabootam daa'iratul mustarshidiin wal mustarshidaat ne leen nañu mokkal xilaas ñu gis ni harmonisation boobu am ci daayira Moustarchidine wa Moustarchidaat mm-hmm. ñuy jàng xilaas tey di ko tari mm-hmm. ba ci xale yi gën a tuuti mm-hmm. <laughs> atmim lana nuurana waxfir jaraimana ah. taqdi xawaaijana yaa waasi an ruhami macha allah macha allah oustaz xilaas boobu noonu ban dimension lañ ko war a jox parce que dem nañ nag ba benn instant euh, dinañ topp des fois fol aspect folklorique léegi-léegi ba dinañuy mujj sax xaw a wàññi dayoo li nga xamante ni moom mooy xilaasu zahab man de bokkuma ci ñuy apprécier folklore mhm. ci Serigne Moustapha Sy mii di surtout maamam mhm. donn ko ci biir donn ko ci biti ci lu yàlla dogal mhm. doxul ci daray caaxaan lii mu def nii Serigne Moustapha mais am na ñu mu ko bokkal ci fameem ci ay sëtu Maodo ci ay sëtaatu Maodo. Mhm. kenn ku nekk am nga say taalibe. Mhm. na ku nekk def li mu def rek tool bi yaatu na. Mhm. kenn ku nekk boo jëloon sa njaboot yar leen ni Serigne Moustapha Sy def. ñoom ñëpp bu ñu demee ci seen maam kenn du la yokk sa maam. waaye nag defuloo ba pare. kii def di def di jàppale sa maam ci mission nga ni du ko fi def wala du ko tale mu jaral la lu ne. ma gharraka bi rabbikal karim. xilaas bi oustaz. muy sa doom ak sama doom ak sa sët ak sama sët mhm. kenn ku ne ma ngi cay def la mu man mhm. te du li tax mu def ko moo ko xam parce moo toog ci penc mi yëpp fu ñu nekk mu njëkk a wax ni Seyyid Cheikh Ahmed Tidiane Cherif moo ni ko Moustapha révolutionnel ma sama tariq mhm. mu ñëwaat ka génti génti ba ci Cheikhul Xaaji Malik ni ko sama xilaas bi ba mu ko waxee ba ñu ñëwee ci gàmm la ko wax teguñu ci ay fan ñu réorganiser ña ngi koy jàng ñu ngi tollu ci at alhamdulilah jeexagul waaye tey foo toll. xilaas bi ki ko munoon. mënaat na ko. ku ko munul woon mi ngi koy jéem a man yàlla dogal tamit ñu am sunu. Euh, nu mu tuddee sunu firqa boo xam ni mm. c'est purement mystique et mm-hmm. spirituel mm-hmm. ñi xamul rek ñoo xamul muy ci sonorité sacrée ci sonorité sacrée mm-hmm. ñu la koy wayal encore maanaam tey euh, auréolé des mélodies divines nag des mélodies divines di la ko wayal yow même boo ko mokkalul woon à travers refrain bi rek boo ko demee baaje benn ñaar ñetti rek nga man ko tey suba nga mënaat waaye kooku nag wax dëgg yàlla yonent bi ñun buñ ko waxul gàcce ngaalamu sunu borom dina ko fayal bopp incha allah. te gis nañ sax léegi eh, njaboot yi léegi buñ koy teeru xilaas lañ koy teeru. xilaas lañ koy teeru parce que moo xew moo xew kon nag ah sama classe gi ko mokkalul classe su Seydou gi tamit léeg-léeg bu ñuy wax rek ñuy miime ñoom tamit. wax dëgg yàlla nañu góor góorgóorlu ñu mokkal ko mm-hmm. ñu mokkal ko bu baax a baax yal na yàlla fayal sama bëgg rek nga jukkil ma mm-hmm. quelques bayit yu la ci xilaas. Mhm. yoo xamante ni Seydi Xaaji Malick radiallahu anhu waaw oustaz boo bëggee dëgg-dëgg <laughs> man minal alifi ilal yaa amul bu ma ci marqué wul. est-ce que yëpp ma ci marqué. waaw yëpp yëpp yëpp moo ma ci marqué. te xam naa ne mënu ma yëpp émission bi. <laughs> déedéet kon daal bàyyi rek yëpp marqué ma rek. <laughs> ay ci yëpp ma marqué yëpp marqué na ko yëpp ma marqué. yëpp na ko waaye man daal euh, am na bu ma ci bu ma ci gën a saf daal. Mhm. Euh, Seydi Hadji Malick ku ne xam na ni. Mhm. Euh, faralul di waxe ci dogu. Mhm. ndax ni mu bàyyee xel suñu borom. surtout ni mu bàyyee xel yeneen bi. nitu mesure la. nitu mesure la. Mhm. ku am modération la Seydi Hadji Malick. dem na ba wax ni. yàlla li ma liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi ba ëllëg bi su pénc goru yàlla yépp taxaw mu ne yàlla li nga ma nar a fayee bul ma ko jox directement loxo loxo mhm. mu ne demal nga jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. couronne bi ma war a takkal mhm. ci li ma liggéeyal yonent bi man Maodo mu ne joxal ma ko yonent bi moom ñëpp taxaw devant tous les hommes mu yëkkati couronne bi takkal ma ko man Seydil xaaj Malick keroog bi su penc moo tax nag am na loo xamante ni ku koy wër fii sama analyse la nag. Mhm. ci lu lay émerveiller ci résultat wu Maodo dañuy jéem nag di fexe toujours di defar. Mhm. mais pour gis lu lay émerveiller. ci mhm. liggéeyu Maodo ba ñu naan egg na à cent pour cent du gaaw. ndax boroom moo ko ñaan. moo ko ñaan ah. du tee nag du ñu tax a yaafuus. ndax rien n'est trop beau pour Maodo. comme ni ko Serigne euh, euh, Mansour Sy Djamil waxee woon. rien n'est trop beau pour Maodo. mën nañ ko defal lépp lu ñu yaakaar ni lii bu ñu ko defaree muy taaru Maodo. Mm-hmm. waaye nag lu baree bari Maodo moo ko ñaanoon pour suñu borom bañ a fesal lépp. Mm-hmm. ñu gis ni dafa ne tallaahi maa xiftu taxniisan ala qasami mm-hmm. mu ne charwaahu maa dammahul asdaafu min tuwami allahu akbar mu ne maa ngi giñ ci yàlla man Seydil Hadji Malick. te sama giñ gii duma ci kafaara de mm-hmm. mu ne charwaahu ku mel ni yenent bi sallallahu mm-hmm. alayhi wa sallam mm-hmm. maa dammahul asdaafu min mu ne lépp luy ëmb rek moo xam jigéen la wala lépp luy jur di ëmb mu ne mosul ëmb wurus bu taaroon yenent bi te pourtant iblis kat moo ko njëkk a nangu de <laughs> waxaala way la mu way la mu yaa ummati at xumilat fi haasi durratun min ahsani tuwami mi ngi noonu de mi ngi noonu de macha allah boobu am na solo mais <laughs> foofu. Uh-huh. ci ngay xamee ni tamit. Mhm. ku nekk ak sa cër. ku nekk ak sa cër moos. Iblis moo nangu ne yonent bi moo dàq ci la yàlla bind. <laughs> waxuma sax Iblis maanaam ci maam Maodo ci béyit bi laa jëm. Uh-huh. ci baat bi mu indi tallaahi. tallaahi ndeysaan. am na ñeneen ay maasam ñu mu bokkal. Uh-huh. wax nañu lu mel noonu ci ngiñ. Mm-hmm. mais indi wuñu tallaahi. am na ku ni billaahi mhm. am na ku ni wallaahi mais moom tallaahi mais ba mhm. waaw six la mais taa quatre cent la ku nekk si sa cër <laughs> moom waxul billaahi parce que waxul wallaahi tallaahi la wax boo nee wallaahi waaw six la boo nee tallaahi taa quatre cent la te Maodo nag tallaahi la jël moo tax boo nee ñépp yam xëy na waajaa la neexul rek oustaz tey joxe nga lu am solo boo nee ñépp yam waa ji moo a neexul. billaahi ba deux la. Mhm. wallaahi la. Mhm. tallaahi taa deux cent la. Mhm. Maodo daal taa la utilisé. Maodo taa la utilisé mu ni tallaahi. waxul billaahi waxul wallaahi. <laughs> donte ñi wax billaahi. respectel nañ leen seen logique. ñi wax wallaahi. respecte nañ leen seen logique. waaye Maodo moom tallaahi la wax. tallaahi rek tallaahi. dëgg la de macha allah oustaz. yal na yàlla fayal ñu. allahumma yal nañu ko yàlla fayal aywa Oustaz euh, gis nañu ni gàmm aussi tamit euh, comme ni ñu koy waxee. Mhm. dafay am euh, benn impact. bu mhm. ama am solo. Mhm. bu muy jouer sur li nga xamante ni moom mooy les réseaux sociaux. tey ci réseaux sociaux yooyu. yi nga xam ne ci wàllu gàmm. gis nañu ni am na ci ay plateformes yu bare bari ay plateformes digitales. yoo xam ne ñii ñi ngi ci live yi ñi ñi ngi ci di def ay photos di envoyé ñi di statut ñu di synap lépp lu ñuy def. yan enseignement lañu ñu war a tirer. ci euh, maanaam Facebook maanaam réseaux sociaux sax dans le cadre général. ci gaaw foofu alhamdulilah mhm. man bokk na sama yitte bi gën a kawe. Mhm. mooy ñu waxante sa combat sa combat la yow moom. <laughs> man maa ngi ciy wax subaak ngoon ak ku ma ci jàppale yow it ma ñaan la nga dugg ci combat bi. Uh-huh, incha allah gis nga ma commencé ko ci leeral bi ma nekk di leen nuyu di nuyu directeur bi de passage. Mhm. gis nga gàmmu gi. sacralité bi mu am. be mawdoni sururun fii sururin fii sururin boo ñëwee ci bis bi mhm. bis bi mën la yóbbu ba ci weer bi mhm. boo demee ci weer bi muy dëgg mu yóbbu la ba ci at bi wa iidun duuna ayaadil uyuni daaw de est-ce que da ngay topp mhm. yi xew yi xuuj mball yi topp yi nga xam ni jëmalewula fenn ba perte li nga waroon am parce que gàmmu li nit war a mën a def bu demee Tiwaawan dafa bari mu oustaz même mu ñëw foofu. Mhm. nga commencé ko ci bi ngay jógee sa kër. nga am an niya al xaalisa. et la préparation psychologique balaa ngay psychologique balaa ngaa jëm. foo jëm say jikko yu rabe nga bàyyi ko sa kër. nga bàyyi ko sa kër parce da ngay dem nampiwaat ci leeru yonent bi. Mhm. mais demuloo pour. Euh, tey sante demuloo pour cérémonie familiale demuloo ngénte demuloo céet da ngay dem pour am looy jëli. dafa am lu la maanaam sa portable dafa déchargé mhm. kan moo la koy chargé leeru yonent bi damay dem di chargé yi mhm. waa daaw da bu sa portable déchargé yoo nga bëgg a woote mais bu tàkkul doo woote mhm. waaw boo yoree chargeur ñëw ba ci fi ngay branché te nanguloo branché kañ ngay tàkk lakin na mawlid ahmad min sha'ni raddul maxaawi fi kulli an mawrid moo tax gis nga réseaux sociaux yi nañ ci bàyyi xel wane ni tey maa ngi ci waawoon aayul aayul ci benn côté dëgg la mais ñu jël enseignement yi. Uh-huh. ñu waxaat xale yi li ñuy tuddee les bordels waxuma Tivaouane kese di fépp fu nit di dem di gàmmu. Uh-huh. yow da nga war a am yéene buñ la laajee foo jëm. nga ni dem oustaz dañ ciy sant. Uh-huh. Cheikh Mouhamadunil Moustapha Sy. radiyallahu taala an ndax néew na ngay gis njabootam. ci taxawaalu parce que ñi nekk ci daayiratul Moustarchidine wa Moustarchidaat am nañ organisation boo xam ne xale yi dinañ nekk ci gàmm gi ba gàmmu gi jeex. Mhm. doo leen gis sax ñuy taxawaalu ci biir mbedd yi seen dal yi la ñuy nekk ba gàmm. gis nga sacralité boobu oustaz. Mhm. bu dee ci enseignement Serigne Moustapha ak ay orientation. Mhm. al mustarchidina la ñuy waxtaanee. ñoom seen lépp c'est organisé. gis nga bu ñu xësee jóge fii bis bi ñuy dem. ni nga ko waxee seen i dal la ñuy toog. lan moo leen yitteel. bu ñu xëyee dem bëccëgu ziar ba. gis nañ Serigne Moustapha gisuñu ko gis nañ capitaine gisuñu ko gis nañ loxo bi tàllalu ci fenêtre bi te temps yi boobu moo xew <laughs> même bu ñu ko amee doy nañu. bu ñu paree dellu. ñu gisul loxo bi sax l'essentiel daal mooy nañu dem rek. Mhm. boo demee nga bànnam tixu ci leeru kër gi. jël sa loxo raay ci miir bi doy nañu nooy mm. def mm. nga dem waajal guddi gàmmu gi vingt heures trente defe naa yéen ñiy dem mm-hmm. xam ngeen ni ñëpp fa la ñuy jullee timis mm-hmm. ñu ak accueillir ko ndeysaan ca sañse ba ca leer ba ca dayo ba ca yaa rasulallah yal na ko cat seexlu daal yal na ko yàlla dolli wér yal na ko yàlla dolli wér mu ñëw foofu tamit maa ngi <laughs> profito mm-hmm. di ñaanal suñu mbokk MJ Daouda ñi ngi def excellent travail. dëgg la mooy lan. Mhm. mooy guddi gàmm ku toog jàkkaarloog Serigne Moustapha mu def discours ñu bëri dañ naan yéen Serigne danañ jox discours bi de <laughs> xale yi ñooy toog déglu discours bi en direct en direct. bind ko bu ñu paree balaa ñu paree fajar bi lendemain ñu génne ko traduire ko. waa daaw bi xoolal ci boobu. moo ñu ci moo ñu ci moo ñu ci nàmpatal de. daaw du moom moo parce que moo ñu wax ni ba mu doon jàng ci Serigne Cheikh. Mm. ca kaseet ya la daan jànge di teg. di mm. bindu loxo mi di neweek lu nekk. tey loolu mu mooy li ñuy wax ni. Mm-hmm. ku defal sa kilifa lu ko kenn defalul. Mm-hmm. yàlla fay la ay njaboot yu la yu ñu la defal yu la kenn dul defal. man de gis naa ci njëriñ. ah ndax war warloo naa ko. gàmm gu jot bu nekk. Mm-hmm. dina traduire benn xasida Serigne Cheikh. mais sant boo defee boobu ci français kee def ko ci anglais kee def ko ci arabe. Ah. kee indi ko ci wolof. Mm-hmm. mais ñu synthétiser léegi nag ah. loolu bu ñu ko defee ba pare nag. Mm-hmm. li la ciy metti nga baal ma mooy yéen. Mm-hmm. yi nga xam ne yéen waa presse bi. Mm-hmm. da ngay ñëw gàmmu Serigne Moustapha toog. Mm-hmm. ak yar bi indi enseignement bu kenn dul dindi. deux heures de xëy na wala trois heures. xëy na ci lu jamono di laaj te munul parce que am na ñoo xam ne da naan gàmm boo xam ne lii waa daaw da ku toog atu yàlla gisuloo ko li fi jaar yépp ci ci at bi. mais nga moom mu ñëw doon nu yonent bi war a waxul yonent bi nga ni ko yow lii rek ngay wax <laughs> mais il faut mu wax sur tous les plans. léegi nag tey bu waxee benn plan bu am ku mu déranger. Mhm. yéen vous les journalistes tey moom dama la ciy dugal pour nga waxal ma ko sa mbokk journaliste yëpp. Ah, ngeen jël gàmmu gi yëpp benn brèche bu sëriñ bi wax ci politique. Mhm. wala xëy na ci wàllu euh, leneen rek ñu jël ko tiitiré ko à la une sëriñ ba la mu wax ca gàmmu ga mais la mu jàngale ci yonent bi. la révélations les révélations de sëñ Moustapha. daaw de ñun foofu la ñuy xaar journaliste yi ren ci gàmmu gi. Uh-huh. ñu waxuñu ñu sëriñ Moustapha li mu jàngale. ci jikko ci yar mais vraiment chaque année rek sëriñ bi pare na réseaux sociaux yi semaine weer la mu wax diw fa mu mais loolu loolu vraiment du honnêteté intellectuelle daal <laughs> eh, te vraiment presse bi ñi ngi leen di woo ku dem jël sa temps yàqu ko dem ba ni da ngay suivre benn vraiment benn édition yow amoo loo ci génn lu dul benn deux minutes. mais loolu vraiment. vraiment loolu ma loo ne tëte la daaw de vraiment. <laughs> bon maa ngi ciy jégalu nag mais vraiment bon loolu la ñu si am. am na solo boo loolu aussi tamit euh, rappel la. rappel la surtout. parce que euh, sunu mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci presse bi. Mm-hmm. surtout presse écrite. presse yëpp rek dans le cadre général. Mhm. Euh, parce que dafa am lu mat di bàyyiloo xel nit ñi. surtout mooy ni Serigne Moustapha bu ñëwee gàmmu. Mhm. da ngay gis ni guddi gàmmu Serigne Moustapha dafa jox cër yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. boo xoolee jox ko cër moo tax. Mhm. néew na néew na ñi gàmmu ci Sénégal euh, nga gis tey ñu def tey décor bu mel ni bi Serigne Moustapha di def. parce que ñaata at la koy defal woy juram Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum. radiyallahu taala an gis nga sëriñ Moustapha li mu am. Hmm. nangul baayam. Hmm. nangul baayam à 100 hmm. pour cent. foofu ma dog la bul ni nangul baayam. nangul kilifaam ngay wax waaw nangul kilifaam. bàyyi fee déret gi. kilifa pas-pas la parce que dafa am. Euh, ubuwa boo xamante ni ci nasabiya la. Mm-hmm. Mm-hmm. am ubuwa boo xamante ni ubuwa ruuxiya la. ba ca man nag boobu laa préféré. ñaar yëpp ñaari maanaam tey mooy wax ci côté boobu. ci mm-hmm. ñaar yëpp. parce que euh, daf ko jur ci deret waaye jur ko tamit ci ruux. Euh, mais bu ñu xoolee ci côté ruuxiyan bi. ni nga xam ne noonu la nangulee waajuram. tàntal ko façon tàntu jinne bu nekk. yóbbu ko fu yóbbu ko fu moo tax damay wax ni tey mirit bi ñu war a jox tey sëriñ Serigne Moustapha Sy tey ci réew mi. Mhm. mooy ni benn njabootam yar na leen ba tey ñun ñi nga xamante ni man wax naa leen yàgg naa di ko wax. Mhm. je suis fier d'être tey njabootu Serigne Moustapha Sy. Mhm. ndax ci moom lañu ñu ci moom lañu jàngee ci moom la ñu jànge yar ci moom la ñu xamee di nammantiku tey ci wàllu xam-xam ba ku ñu gis naw ñu ci lool nga ñu nawee. kon nag nit ki mënul am mérite boobu def ko ci ay ndaw ñoo mm-hmm. xamante ni dañu waroon yàqu mm-hmm. mu defar leen Hmm. ñuy wax xam-xam lu kenn dul dindi. Hmm. ñu am yar boo xamante ni ñëpp ñu ngi leen naw. Hmm. kooku dafa mérité tey ñu jox ko gëddam jox ko cër bi mu amee. dama ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum am tey vidéo wam ku am tey scoop yi ngay gis yëpp ñu koy statut naan Serigne Cheikh waxoon na waxoon na fan la Serigne Cheikh doon waxee. ci tàddu Serigne Moustapha. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum tey vidéo boo gis ñu koy teg tey ci Sénégal. Serigne Cheikh fa mu ko doon defee Al Maktoum Serigne Moustapha Sy moo nekkoon au cœur de l'organisation. ndax ba ñëpp bañalee Al maktum Serigne Moustapha Sy kese moo nekkoon ak moom. Mhm. donc kon mérite boobu noonu nañ ko ko delloo mérite boobu nañ ko ko nangul mooy ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy. loolu kese bu ko ci yàlla fayee. Mhm. moom Mawlaaye Seyd Mouhamadou Moustapha mhm. waxuma cëram yi mu am de sonn bi mu sonn ci daara ji góor góorlu tuur ñaqam bëggul dërëmu taalibe mais li mu defal kilifaam kese kii mooy sama kilifa doy na ma. Mhm. mu ñaanal ko loolu kese bu ko dalee. Mhm. mën na bañ a defati leneen ah, dara. suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al moo ko ko moo ne ko Moussa sagal nga ma. yal na yàlla sagal yal na la yàlla sagal. moom ah. ñaanam googu rek doy na ko te moo ko toog kon nag Serigne Moustapha Sy. yal na yàlla la ko capitaine. Mhm. maam Cheikh di fay Serigne Moustapha Sy itam. moom it suñu ah. maam Cheikh <laughs> Ahmed Tidiane capitaine. de passage ñu ngi koy nuyu. moom it yal na yàlla sàmmal ñu ko. yal yàlla làqal fu loxo yàqkat ah. abgul ndey nee na kii ca waxu buka yaa mawla yaa jimal hajimalu mhm. jannatin ala al ard ala al ard wala ah. ah. mi ngi noonu daawda mu ne yéen daal daawda daawda uh-huh. gis nga àdduna bi uh-huh. kenn mënu fi nax kenn lay nit ñi dañu yori seen bët di xool uh-huh. yore seen nopp di déglu yore seen tànk di dox mhm. gaa yi xam nañ mbiri de xëy na kay da ngay wax ci kaw rëy làmmiñ ko man mhm. wala nga noppi da ngaa ragal opinion publique bi nang mhm. foofu ma def la benn anecdote xam nga sànq yaa ngi ne je suis fier d'être Moustarchid ah même moi j'en suis fier ah oustaz ah dama ñëw ci benn émission bu mel ni ñu invité ma ñu war a waxtaan ci benn émission mais waa ji di ma defal briefing di ma bàyyiloo xel comme xam nañ fi nga bokk <laughs> su ma sañoon ma ni man doo ma wax lu man yow du yow Serigne Moustapha su fekkee munu ma ko wax ci plateau kon ñu dindi micro yi man ma dem. mais mais loolu c'est-à-dire c'est non maanaam foofu c'est la malhonnêteté ça. maanaam foofu dama la bëgg jàngal ni maanaam am na oustaz bu mel ni man. Mhm. toog ci plateau amul fi di tudd Serigne Moustapha mais wala problème. Ah. mais ku nekk bon da ngay tudd ki la man de su ma mënul tudd Serigne Moustapha ci plateau kon balaa ñoo commencé ma jël samay daal paasaat dem man kay ah. Serigne Moustapha fu ma mën a nekk ah. insha allahu taala mm. parce que moom mais daaw de mais man kan laay tudd ku lu Serigne Moustapha kenn yàbbu ko de ah <laughs> yal na yàlla dolli sutura. yal na yàlla dolli sutura kon point bu mujj bi oustaz bu mujj bi oustaz allah. Euh, parce que. Mhm. daayratul musaashin wal musaashidaat dañu am ñetti événement majeur mhm. bi ci njëkk. Mhm. mooy teeru bi ñuy teeru Serigne Moustapha Sy ci këram. Mhm. ñaareel bi mooy euh, guddi gàmmu. Mhm. champ de course. Mhm. ñetteel bi mooy lendemain euh, gàmmu muy champ de course aussi ci bëccëg gi. ci biir loolu biir champ de course ak champ de course ni mu toll. ñu gis euh, activité de désherbage. muy bay bi nga xam ni bay nañ ko champ de course. mais ci record boobu en temps record une heure en une heure de temps. Mhm. ñu bay course ba yépp mhm. Oustaz Daouda gis nga loolu loolu cax la. Hmm. en temps record une heure de temps rek li nga bëgg te nee nañu bu ñu koy mettre à peu près dix hectares. dix ba à seize hectares. à seize dix à seize d'accord. Mm mais loolu Daouda cax la. xëy na sax. parfois ñun ñu rakkaaju ñi sax léeg-léeg ñun ñooy jël ci réseau sociaux yi di wax ni dañuy def mais ñun daayira bi am na fu mu doon tool da ngay xëy rek gis ñi am na lu xew peut-être nag réseaux sociaux moo xew peut-être sax am na loo xam ni munul ñàkk léegi jamono ko laaj jamono sax moo ko laaj mm-hmm. mais sëriñ bi day toog fa muy toog mm-hmm. yónni ka muy yónni ka muy yónni moom fa muy jaar ba information bi agsi ca ña muy agsi ñoom xam nañ ko moom la ñuy wax discrétion bi nekk ci Moussa Tine discrétion bi nekk moo tax ku leen song rek. Mhm. xaaral sa bëccëg. Mhm. moo tax mani la cax la ci <laughs> ci fi ñu jëm ci kanam. Euh, ñetti fan yooyu daaw da mhm. alhamdulilah. ñu sant ci yàlla. te di ko ñaanal wir ak wirli. ndax it xëy na âge bi. da koy ñeewantu. jot bi. fi mu toll ci ciru yàlla. da koy ñeewantu. waaye nag ah. fu yonent bi jaar. sallallahu alayhi a sallam. ah Seydatuna Fatima daan na ko wax naan ko papa kañ ngay noppalu. kañ ngay noppalu. boo xëyee topp marché yi topp foire yi fu nekk mu dugg fa rek ndax mission bi mu ne ko ah doom. mission bi amul noppalu. la mu waxoon baayam rek. Uh-huh. wallahi la wadon chamsa fi yamini. Mm-hmm. wal qamara fi yasaari. Mm-hmm. ala an atruka hadal am ma taraktu. ma taraktu moom nag foofu la toll. Mm-hmm. parce que daaw de Serigne Moustapha do euh, maanaam ñi mu doon ñëpp ay kàngam lañ. bu temps bi yaatu woon rek ma defal li silsila bi. mais dama ni oustaz. Mhm. gis nga ñetti fan yooyu. Mhm. ñun mooy suñu temps propice ci gàmmu gi. Mhm. ñun mooy suñu farata. ñun demuñu di lambar lambari. demuñu di ziyaare ji. demuñu feneen dafa am lu ñu tax a jóg. foofu dafa jar a leeral. dañuy faral di wax ni euh, Moustarchidine yi dañu recherche nangam ak nangam dañu organiser wu. xam fi ñuy toog mm-hmm. xam fi ñuy waxee xam fi ñu yam xam seen bopp parce que fi ñu leen tënk foofu ko passé oustaz uh-huh. <laughs> Moussa Sidi dañoo raciste Moussa Sidi am na fu ñu organiser uh-huh. léegi ñiy wax dañoo raciste léegi est-ce que ñoom it bàyyi nañ fa ñu jàpp ñoom ñëw daal du ñuy fekk léegi lu tax nag ñun ñu war a bàyyi ñun bon di leen fekk ah. Daouda nag loolu nag wax dëgg yàlla warul warul mën a poser problème. mooy li may wax toujours Daouda uh-huh. kenn ku nekk na bàyyal maamam rek. ñoom bis bu ñu demee ba fekk seen maam. kenn ku nekk mu ni maam wane sa résultat kenn ku ne wane sa résultat. moo tax li ma déggoon Mansour Sarr wax. Uh-huh. ma nuyu de passage maam Cheikh Ahmed Tidiane Sarr uh-huh. wax dëgg yàlla ci burdu bi mu ñu mm-hmm. defal ci axe Dakar 2 mm-hmm. ñi ngi koy saluer mm-hmm. fi mu teg tànkam foofu la seede ne seede yu rafet moom suñu goro la waaw suñu goro la seede ne seede bu rafet ci kilifam ci uh-huh. wéy juram ci léppam uh-huh. yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay soxna Asi suñu soxna soosu <laughs> kon ñi ngi nuyu suñu soxna soxna Asi moom daal gis nga daaw da dafa am loo xam ni. Mhm. da nga koy làmb daj. dëgg la ndeysaan. Serigne Moustapha. Mhm. wallaahi al azim. Mhm. bu ko neexoon mu toog. dëgg la de. du superviser. parce que li mu. waaw mi ngi nii waay xoolal ma macha allah. mi ngi nii waaw waaw macha allah sama jinne ji nekk ci régie Alioune Badara Sakho. ak sama turando jiba xam nga ñii oustaz ñii. Uh-huh. ñii. waaw ba ñuy bay kii ba. oustaz oustaz baal ma. ñii. du Serigne bee leen jox paas. déedéet. du sëriñ bee leen jox ndékki mhm. du sëriñ bee leen jox añ mhm. lan la innana sami'na munaadiyan yunaadi lil imaani an aminu rek fa amanna ajibu daa'iya allah mawla istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum te mhm. fii nag ixyaau mawlidi nabi lañ fi def daaw da maanaam. Euh, cloche bi dafa sone rek. moo tax Leral TV def na ci liggéey ba am yal na leen yàlla fay tamit yéen waa Leral TV. te ñëw ngi ñëw champ de course. incha allah taala macha allah ci lendemain bi fa la ñuy ñëw def fa suñu place. yal na yàlla barkeel. kon nag oustaz. Mhm. gàmmu gi mi ngi noonu ci organisation bi. na solo xëy na ci ndigalu mu Moustapha Sy mhm. mu jël liggéey bi yépp teg ko ci loxo capitaine. Mhm. capitaine ànd ak ay ñi koy jàppale ñu defar jóge nañ ca. bay ba mhm. ña nga commencé ca tante waa santé dugg nañu organisation logistique nañu mhm. daaw de ñëpp yal na leen yàlla sàmm oustaz daaw de ñëpp yal na leen yàlla taxaw point bu mujj bu oustaz mhm. ci biir champ de course euh, dafa am benn discipline bu fay am ñu gis bu sëriñ Moustapha commencé di waxtaan champ de course la fay nekk ci ay nit kenn xam nu mu toll mais mosuñu dégg fu sëriñ Moustapha si di waxtaanee di fëgg micro bi naan déglu leen wala ñu naan noppi leen mbooloo mi. Mm-hmm. maanaam tey discipline boobu noonu am mbooloo mu toll noonu nga mën ne neutraliser. daaw de kii ma jàkkaar lool sama sang bi. sunu sang bi sang bi donn bi mu donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, daan yar ay saxaabaam ah, di jàngale enseignement ba picc di tag ci seen kaw bopp te duñ ko yëg du ñu yëg ni picc mi ngi ci seen kaw bopp wat ca watit mooy li nga wax ni oustaz fu ñu tàntalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne war ngaa yar say cër waa léegi nag oustaz bu ñu demee ba naan déglu leen may leen ma ñuy tàntal yonent bi maanaam xumbeel bi ëpp enseignement bi sar xoll bi ëpp enseignement bi nga ni yonent bi moo tax Serigne Cheikh waxoon na kuy wayatu yonent bi way ko ci xaalam te bu ko way ci sa xaal moo tax dérapage yu bëri de. Mhm. moo tax nag fa inna muhammadan fi kulli qarn. laa yaxiibu wala yaxiib daaw da nen daal ku ko gis ni nen a ngi nii. dëgg la de. ah Serigne Moustapha Sy de. Mhm. xaw ma ku gàmmuwul de. Mhm. waaye moom mi ngi gàmm. dëgg la man de gëm naa ni xaw ma fu yonent bi demul. waaye yonent bi mi ngi champ de course. wallaay ndeysaan. Serigne Cheikh wax na ko. nee na ba mu fi jaaree message bi ma ko jox. dëgg Serigne Moustapha répété nañ ko te gëm nañu ni amul fu ñu koy tàntale. fu dul yonent bi jaar na fi sallallahu alayhi wa sallam. parce que man dama gëm ni. dama gëm ni dama gëm ni gàmmu al mustarshidin mhm. su fekkee ni yàlla nanguwu ko. Mhm. allahumma la adur ban lay nangu. dëgg la. parce que lépp dafa yàlla. dëgg la de commerce wuñ ci. Mhm. neexal lu ñu nit. Mhm. organiser wuñu bind ay këyit. Mhm. yaakaar ni bu gàmm gi jeexee ñaata million laa ciy am. ñaata visa lañ ma ciy jox. mais daaw dinañ waxante dëgg am na gàmm yoo xam ne bon <laughs> mi ngi noonu bon gàmmu kii la gàmmu mi ngi noonu <laughs> yal nañu ko yàlla fayal yal nañu ko yàlla fayal yal nañu ko yàlla fayal waaye xam nga ni lii nii soo ko gisee merci beaucoup Aline Badara Sakho uh-huh. euh, yow Sakho moom yow moom foog ma defal la mbaqus moom macha allah Sakho gaaw de Oustaz. Sakho Oustaz waaw ah, Oustaz. Oustaz non c'est que man Oustaz lii. Oustaz. gis nga lii. bëri na ñoo xam lamma ra'ayna tijaani min sayyaratihi. Oustaz am na ñu bëri lii moo leen déranger. lii surra al-qulub wa shadda tarabu lil karami fa taabati taqsu wal ashjaaru naadiratan wa abrada al jawwu takriman ala qadami. allahu akbar allahu akbar allahu akbar. nee na ndeysaan xoolal rek la maara ay na tijaan yi bu ñuy gis sëriñ Moustapha muy wàcc nii di dugg nii ñu koy defalal euh, ndeysaan sécurité bi jalonné ñu escorté ko kenn débordé wul mhm. muy dugg ndànk ak tempam boobu ba yegg ci bërëbam ba ànd ak góoram gi ànd ak capitaine maam Cheikh war a ñëw toog ca chaise am boobu mhm. gis nga na muy toogee noonu gis nga ko sang baa ngi noonu Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Moustapha si tàllal loxo ba bu tàllalee loxo ba ba toog tàmbali asalaamualeykum ba jib yaa rasulallahi ba jib mu ne nag fataabati taqsu mhm. da ngay gis ni sax atmosphère bi atmosphère de l'univers climat bi da ngay gis ni dafay apaisé wu mu mel ni dafay dëglu di nammantiku ci kàddu yaa rasulallahi gi gis nga waaye le cœur dañuy bannanti ku nekk en extase jóg ndax wa hubbuka yaa mawlaaya ajmal ndax ajmalu jannatin ala al ardi moo tax waaye wal ushaaqu fiha tawahadu hmm. kon oustaz oustaz Daouda man de wax dëgg yàlla amatuma lu ma wax ndax lii nga ma wan daal man doyal na sëkk sëkk sëkk sëkk ci émission bi macha allah yal nañ ko yàlla fay Daouda xoolal ma borom ree ji neex ji Daouda xoola surtout Maodo bi Daouda xoola ki donnu Seyid Cheikh Ahmed Tidiane yan nañ ko yàlla fayal yan nañ ko yàlla fayal macha allah si Malick wax dëgg yàlla kontaan nañ wax dëgg yàlla kontaan nañ ah su ko defee nag kon ah may ma ambiance bi waay yaa rasulallah wallaay ndeysaan macha allah macha allah macha allah xoolal xoolal discipline bi waaw xoolal organisation bi. allahu akbar. ah. ah mi ngi noonu de. ñii de daaw da. haza nizamun daawda ñii de kenn woowu leen ni leen kaa leen seize ñu fay leen cinq mille ndax mu fees fil kitaabi muqaddasun wallaay ndeysaan qad kalla gayruka anhu bil ittiyaani wallaay ndax tabaqtahu wafqa zamani mhm. waaw wa assamtahu bi inayatin wa damanin loolu loolu loolu la góor gi def non bu dul woon nekk daawda bu dul woon <laughs> garanti munul ah, nekk lu baax lu baax du doy. fatabaarakallah yal nañu yàlla fayal. yal na yàlla fayal yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ah yéen kàddu yal nañu yàlla fayal damay bañ nga daanu rek suñu caméra yi. man kay daanu na ah xanaa <laughs> ñu sant. yàlla mi nga xam ni. moo ñu baaxee ba ñu mën a teewe jataay bi. mu jaar ci loxo sunu jigéen. Mhm. maman Maysa Mbeng. ndeysaan moo ñu fi yebal ci turu responsable moral. macha allah de passage ñi ngi. sant mustarshidi ak mustarshida yépp mhm. fu ñu mën a nekk fii mashariqil ardi wa magharibiha ak képp ku leen ko yéene mhm. di wax rek ñi ngi joxante rendez-vous la ca champ des courses mhm. naa ci baat bi sax sëriñ bi corrigé na woon dëgg la mu ni nañu wax champ des cours parce que dafa am ñu doon wax ni moo ñii de ñoom seen gàmmu ga fa fas yay dawe waaw d'accord ñu naan ma ah, moom ñoom de fa fasee dewee waaye nu leen fu ay fas di dewee mbaam amu fa place dëgg la ay fasu naaru góor fu ñuy rawante mbaam amu fa place kon ku dul fas rek doo fa ñëw ay ca champ de course kon na wax dëgg yàlla transformé en champ de en champ de kon nag mm. ñi ngi koy ñaanal te mm-hmm. man duma jóg dañ mm-hmm. koy ñaanal ndax am na koo xam ne bu jógee rek yu bëri jóg kenn yàlla sàmm suñu safas ñi dem tamit pèlerin ñu ñaan leen ñu mm-hmm. jël ay oto yu baax mm-hmm. bañ a yàkkamti bañ a daw guddi mm-hmm. ñu dew bu leer <coughs> topp recommandation yi ñu leen sant dem ci jàmm récupérer liñ leen war a wax yëpp xam nañ duñ fi nekk naan leen fii nga war a yam ak fii nga war ñoom kenn ku ne xam nga li war a def ñoom xam nañ li ñu war a def su ko defee nag oustaz Daouda mm-hmm. tey moom man maay élève bi déedéet <laughs> yow yaay oustaz bi parce que bëri na loo wax man maa ngi miime rek man sax xamatuma lan moo ci topp uh-huh. kon vraiment ñu ngi lay encouragé mm-hmm. di wax ni nii rek la mm-hmm. tey bañ doon nekk ca daara ja bu fekkoon ni nga ñuy nab nga ñuy nga nga nga ñuy teete xëy na ma leen di teete su <laughs> fekkoon ni Uh-huh. gisuloo woon loolu tey mm-hmm. résultat bi du feeñ kon nag yow tamit li ñu def ci yow ba nga man ma invité mm-hmm. yow fexeel ba def ko ci keneen kooku def ko ci keneen mm-hmm. kooku def ko ci keneen mu nekk lantino ñu ngi nuyu Oustaz Mor Thiam ñu ngi nuyu Oustaz Mor Thiam tamit wax dëgg yàlla moom it lépp moom la lépp moom la man ak yow ak keneen ñun ñëpp ci loxoom la ñu jaar kon tamit yal na ko yàlla doolu wér yal na ko yàlla sagal yal na ko yàlla suturaal ba moom it li dund ci xadara bi mhm. li mu daj ci xadara bi yàlla bu mu niil yàlla na rogalaat ci ay njabootam kon nag wa axiru daawaana mhm. an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi kon euh, tey émission focus euh, noonu la exclusivement euh, lañ doon waxtaanee ci gàmmu fële nga xam ne moom mooy champ de course waaye kii ma daral tey ku cher la ci man comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen bi ndax tamit jaar nañ ci loxo mu ñu jàngal ñu. ba tey jii nii fierté bi ñu am ci wàllu xam-xam lu ci bëree bari moom euh, participer na ci noonu laay jaare aussi tamit nuyu ko oustaz Makhtar Thiam euh, oustaz El Hadj Cissé euh, oustaz Mor Thiam parce que nit ñi bu ma leen di tudd nommément mhm. ak oustaz fay mi nga xam ne actuellement mooy le bras droit de Serigne Hadi Niass ñii dañ ma marqué ndax dama jaar ci ñoom ñu teete ma ci wàllu xam-xam yàlla sàmm leen aar leen parce que loolu moom mooy ñun suñu fierté oustaz Mor Thiam dañu toog mu ne ma Oustaz Mor Thiam bu RFM TFM mu ne ma daaw da ni ma lay suivre yow doo ma ko suivre. Mhm. wallahi alazim mu ne ma ba ci yére bi ngay sol sax man dama koy superviser Oustaz Mor Thiam. Mhm. kon loolu dafay wane rek considération bi mu am à notre modeste personne ñun tamit ñu am considération bu ko ëpp. macha mooy li may wax ni lépp lu jëm ci njabootu El Hadj de Thiam. Mhm. man ñemewuma xotti seen orma. yàlla ak lu baree bari. te xam nga li may wax mun nga koo seede. kon waxtaanu tay bi mbokk yi dafa am lu may préciser rek saaxo nga may ma ko foofu laay tëjee mm-hmm. mooy ni nit ku nekk dafa am cëram mm-hmm. nit ku nekk dafa am lu mu moom ci boppam mm-hmm. depuis ñu nekk ci presse di ci wax de la RTS fu ñu jaar yépp muy DTV muy fu ñu mën a jaar euh, ba TFM ba ni ñu ñëwee ci leeral TV yàlla defal nañu sutura musuñu ñoo taaj nañu wax ngeen wax bu débordé man mii ci sama jëmm li ma jot a jaar ci presse yëpp ba yegg si leeral TV. Mhm. maa ngi ci sama troisième année ci leeral nit mënumaa génneel benn vidéo ci émission boo xam ne dama wax wax bu ñaaw boo xamante ni dañ ciy attaqué nit. Mhm. waaye dafa fekk ni nit ku nekk da ngay fier ci li nga nekk. Mhm. ndax tamit gis nañ fi fii yeneen xew-xew yoo xamante ni am na. couvrir naa fi màggal fiir naa fi ay xasida Sëriñ Tuubaa yi dul jeex. firi naa fi ay xasida Baye Niass yu dul jeex xasida mm. Maam Khalifa Niass Alaaji Ahmad dem ba ci Cheikh Omar Fuuti yu taal mm-hmm. kon mbokk yi war ngeen mën tey jii nag accepter tey nit ki fa mu bokk mu mm-hmm. fésal ko mm-hmm. man nag j'en suis très fier et j'en serai toujours fier d'être un disciple fidèle disciple taalibe de Cheikh Mouhamadinel Moustapha Sy donte kenn ku ci nekk nangul naa la sa cër kenn ku ci nekk jox naa la sa cër ba mu mat Hmm. waaye nag lii nag nga xam ne dama ko moom am ko kii deret daf ma booleek moom hmm. ndax alxaaji ahmad dem soo sookoon mi jur soxna su fi dem soxna su fi dem jur sëriñ Moustapha si mii hmm. alxaaji ahmad dem moomu mooy suma maam man mii kon deret daf ma booleek moom ba pare au delà de deret xaqiqa boolewaat ñu mu nàmpatal ma ci xam-xam nampatal ma ci leer nàmpatal ma ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu yar kon kii bu ma toogee fenn te joobeewu ma ko bu ma toogee fenn te dool delloo ma ko njukkal mm. kon fayuma naar bi xoromam mm. kon loolu moom moo waral tey ñu waxee nii waaye ñun xam nañu ku ne xam nañu ci modération ku ne xam nañu ci retenue kii nag dañu amul ku dul moom moo tax nag nangul nañ keneen ku nekk la nga am waaye nag ñun kii lañu yàlla booleel kon loolu nag na ko ñëpp xam euh, ndax nag am na loo xamante ni boo ci nekkee da ciy fier hmm. ndax nekkoo ci lu bon hmm. wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu